asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 21 février 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb la ñu xëy tey doore ko yëglikaay bi nag ñeenti mbër tey moom la xëy indi Gris Bordeaux Ama Baldé ak Tapha Tine sunu lamb nag dafa xëy ci saison bi nga xam ne xat na weeru koor a ngi ci saison bi kaan bi mu ngi ci saison bi boo xam ne ay élection sax am na ci te tamit boo xoolee yëglikaay bi nee na le 31 juillet ci la saison bi di tëj moo tax nag mu tiital mbër yi nga xam ne mooy Gris Ama Bombardier ndax ñii day est-ce que saison balaas yootu leen te ay VIP lañu sunu làmba tey moo xëy di laaj loolu leneen la ca des mooy promoteur yi nga xam ne fi mu nekk nii seenu taxawaay wóorul moo tax daal yëglikaay bi jàpp ne day ñii buñ ñu sàgganee day année moom dinañu ko def suñu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi da ñëw muy écrit boo xam ne day fi mu nekk nii ci ay jafe la nekk nekk dëgg dëgg mu yokk énergie sunu làmb tey xëy na ñëw ci ay yoo xam ne fi mu nekk nii day génn écrit ba la ñu bëgg ak président boo xam ne dañ koy comparer ak bër maanaam daal moom lépp lu muy def du ca diis ak kenn day jekki rek di signé la ko neex moo tax nag mbër yu bëri daal fi mu nekk nii boo sàgganee danañu bàyyi lii nga xam ne mooy roog énergie wala boog seen ab xol neexatul sunu làmb xëy tey dina ko wax moo tax nag yëglikaay bi ne na li daloon écrit face daaw mbaa du dal écrit bii nga xam ne mooy roog énergie Cheikh Sow ak moom dafa mel ni mooy président ba mayuñu ko dara dal nañ ci kawam bu baax a baax a baax sunu làmb xëy tey wax lu ni mel leneen loo xam ne gis nañ ko ci yëglikaay bi mooy Sa Thiès nga xam ne mooy Yékini Junior mu mel seen combat dafa mel ni day su amaatee dina mel ni loo xam ne ah Balla Gaye bi amoon ak kii nga xam ne moom mooy Modou Lo loolu lay daal di saf waaye nag fi mu nekk nii daal combat boobu daa mel ni fi mu nekk nii promoteurs yi war nañ cee wax mooy diggante kii nga xam ne nii ak Yékini Senior ka nga xam ne nag moom xaritu bi Yékini Senior la di Papa Sow moom nee na pare na ngir combat pare na ngir bëre Papa seq na waxtaan wu yaatu ak yëglikaay bii nga xam ne mooy sunu làmb waaye ñamu xalaat nag daal jàpp leen kii nga xam ne mooy Sa Thiès Tapha wala guy gi Papa Sow daal nee na ku mu ci mën a doon moom déjà pare na ngir fas yéene nag séq ak yow deflanteeg yow bu baax a baax ndax komba dong moom lay xaar sunu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da cee ñëw muy beneen mbër boo xam ne moom itam mu ngay dénoncé di wax la ko naqari muy kii nga xam ne mooy gar ga 2 Garga 2 daal la mu xëy di wax nee na Ameth dem ak Bébé Saloum dey dañoo sax xaw koo ragal wala boog ñu ragal ko ndax daal moom dañuy dox seen ay komba ak moom waaye loo ci mën a dégg daal maanaam dañuy ruux dañuy jaar ci ba daal fexe fexe ba génn ca loolu mooy li nga xam ne mooy kàddooy Garga 2 tey ci yëglikaay bi nga xam ne mooy sunu làmb beneen promoteur boo xam ne moom itam yaram moo dafa tàng galaa la 13 avril bii daal mu ngi cay dugal ay xale yu sap sap muy Assane Ndiaye sunu làmb nee na jàpp leen Assane Ndiaye tëggaat na ñaari xale Ndiaye bu Malika ak Koña 2 fas leen yéene nag dugal ca bés booba nga xam ne mooy le 13 avril bi nga xam ne moom la fas yéenee tëgg meneen mbër moo xam ne moom am na koo xam ne ni moom lay waxal mooy ki nga xam ne mooy missionnaire digganteem ak bébé jeen daal mu nga cay wax sunu làmb tey moo xëy dinu ko wax la moom la munu xëy wax mooy ki nga xam ne day mooy Lac de Guiers numéro 2 mbaa Balla Gaye 2 tegu ko pression ndax nag Balla boo xoolee combat bi mu mujj gi bëri day jël ba mu ca daan ba tey ñu ngi koy waxtaane moo tax suñu làmb tey laaj ndax kii nga xam ne nii day moom mooy Lac du nekk ci lii nga xam ne mooy presson ngir ndam loolu la bi nu ko wax leneen loo xam ne nag sunu làmb da caa ñëw muy ay affiche comme ni mu koy defee rek soo ko Sokosim Garga 2 Pape mbay numéro 2 combat yi la yëglikaay bi xëy tey andil ñu ko di laaj ndax lii war naa mën a am wala waru la mën a am Talla Ndiaye bu la neexee laajal internautes yi l'an 2000 Sococim Garga 2 Pambay 2 est-ce que lii ay combat ma yaakaar ne bu jaadoo moom ñuy siifir danañu ci xam dara Talla salaamaaleykum mbokk ci staan Leewtoo TV di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ma leen di wax euh, namoon naa leen trop ndax gëj ñoo gise ma ñëw namm sama càmmiñ bi nga xam ne nii mooy Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssatou Faye madame Niang ma la gën a namm sama jigéen gars yi namoon nañ la tamit ah di la nuyu di la ziar di ñaanal suñu bébé boobu xawoon na wér di rek yàlla na ko yàlla gën a wéral bébé Ndiaga di ko nuyu di nuyu papaam di nuyu tamit. mère mère Souga ah. ñu koy nuyu di nuyu famille bi yëpp quoi di nuyu ñëpp ñuy suivre quoi. Babacar euh, ñu ñëw ak euh, mbokk internet yi ak seen euh, jàngat bi nga xam ne def nga revue ba pare ñu ñëw ci li nga xam ne moo gën a fës tey suñu lamb andil ñu ay VIP yoo xam ne nii nee na est-ce que jëmuñ saison blanche kii di Gris Bordeaux kii di Bombardier Tapha Tine Ama Baldé parce que tam ñëwaat ci gattaay saison bi nga xam ne ni gàtt na ko torop torop bi yoon. wax nga dëgg ay satu parce que journal bi foofu mu ñëw am na solo te lu jar def taxaw seetlu parce que lu tax mooy. saison bi comme ni ñu ko waxee gis nga élection yi parce que jël na mois de février bi boo xoolee parce que làmb amu ci comme ni ko doon xaare bu ñu fa jógee euh, koor gi day ñëw te ti mois de mais bi lay doon yaa ngi dégg ñu jógee sa coupe d'Afrique day ñëw kon nag loolu jar na xoolaat ba tax na ñoom mbër yooyu muy Bombardier muy Tapha Tine wala muy Gris Bordeaux wala muy Ama Baldé ñoom ñëpp yaakaar naa fi mu nekk nii loolu war nañ ko sóoraale seen staff yi ba nga xam ne saison bi comme day xat am na kase yoo xam ne ko fayee pour mën nga jël ko bëree moo gën xam nga euh, li nga xam ne nii daal li olof yi doon wax naan tuutte ceew njëg ak Bambey moo gën a ba nga xam ne nii jël combat daal bëre pour man moo gën a wóor ngay xaar loo xam ne ëllëg doo xam kañ la jëm saison bi tëj après ngay xaaraat beneen combat te pour man athlète bi nga xam ne mooy mbër mi war na chaque saison bu mënta am ñaari combat tamit mu au minimum mu am benn combat bëri ko parce que mbër yooyu ñu wax ñëpp waruñu waruñu mën a def année blanche te des na yeneen mbër yoo ne sax duñu ay VIP d'accord waaye ñu ngi ci làmb ji te waa làmb soxla leen te fi mu nekk nii dañu war am combat kon daal loolu

neex mënoo ko tëgg lundi wala jour ouvrable day xaw a demee neneen waaw loolu am na parce que boo xoolee ñoom ñoom seen ay combat comme ni nga waxee fi kenn lañ ko mën a tëgg kon jaaxaar naa a bàyyi xel la ko tëgg ci benn euh, ko ci tëgg loolu du mën a parce que ñoom seen ay combat day dem presque ay 4 5 mois yoo xam ne ci wàllum communication ak yeneen ak daal li leen di wax moom di leen ko dolli xëy na ñoo ñu ko gën a xam sax nañu bàyyi xel ne que bi gàtt na ba kuñ ci dox sa combat ak sa morom buñ la fayee lu jaaru pour man war nga ko mën a jël bëri pour waajal prochaine saison bi. Babacar ñu jógee foofu dañuy dem euh, écurie Rock Énergie instant yi Rock Énergie ñu ngi fay wax est-ce que bukki bi maa doon face <laughs> maatul Rock Énergie parce que instant yi métti na trop nit ñi am nañ ay frustration coow li commencé na bëri. waaw bien sûr parce que nag boo xoolee ah, parce que nag li am mooy ah dafa mel ni coow le am na fa am na mbir yoo xam ne seen xol neexul président bi dinañ moom mooy loolu ñoom ñooy wax ba tey loolu nag liñ ci mën a xam mooy dafa mel ni làmb moo ànd ak coow am na lool nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen écrit muy waaruk énergie ñoom ñoo war a toog muy président ba ak ña ko entourage ba ak mbëri ya rawatina ku parce que ku mel ni Modou Lo ma nga xam moom lañ moom la ñuy jàppee comme tête de file ba ñoom ñoo war a toog nag xool li nga xam ne mooy ñuul ci soow mi ci bokku ci ñu jëm ko cee génne parce que tamit ay bu ñuy ànd dañuy faral di waxtaan lu bëri di communication bi di jàll bu ko defee lu ne ci sa moroom ngam mën ko xam li nga xam ne moo war a mën a taxaw voilà ñàkk a waxtaan am li war a mën a taxawal mbir mi ñu jëm ko xool xam ne lii moo doxul ñu jëm ko sensé li li ñu jàpp ne suñ ko defee mu dox ñu def ko loolu defe naa moom la ñuy wax écrit yëpp parce que tamit ay écrit bu ñu dajee ay mbër daje fa am ay am lépp war nañu mën ay satu seen communication di jàll ba nga xam ne daal xëy na problème bu am bu bu mënta ñàkk tamit du doon problème boo xam ne dina nekk loo xam ne dina méttee métti bay indi yeneen jafe-jafe luñ mënta lijjanti kon daal ñu ngi ñaanal Rock Énergie di ñaanal écrit yëpp ku ci nekk rek ñu fexe stabilité am ci écrit yi ba nga xam ne dinañu mën a avancer parce que bu stabilité amul athlètes seen bopp yi du tranquille te résultat yi du positif ku wedd gis nga écrit Fass koy dal at yi passé yëpp ñu jóge foofu Babacar euh, dem ci seeti euh, journal bi ba tey mu andil ñu ki nga xam ne mooy Yékini Junior ak euh, Sa Thiès nee na combat boobu bu taxawee dina nekk revanche par procuration diggante ki nga xam ne ni mooy Modou ak Balla Gaye parce que gis nañ léegi diggante Yékini Junior ak Modou di gis te xam nañ ni Sa Thiès rek ko Balla Gaye la. waaw saa ak Balla ñoo bokkoon ndey ak baay Modou ak Yékini Junior gis nga seen diggante léegi ah vraiment muy diggante boo xam ne gis nga ñuy àndee taxawal comme loolu ñu wax rek revanche par procuration mën nañ ko fa xaar parce que lu tax mooy bu keroogee ku ne xam ne Modou mooy Yékini Senior dana ko ngem dana ko jàppale ci lu mu mën a doon parce que gis nga combat yi mujj ni ci Yékini Senior soññ kee nag rakki Balla Gaye la loolu moom deesut wax ndax dina ko jàppale wala du ko jàppale. xam nga lu may fàttali boobaa Zarko Sa Thiès waaw day dellu siwaat Sarko Sa Thiès ba gis nga kera la ma mujjee indi Sarko Sa Thiès nekkoon combat bu ba amoon pën neexoon trop bëri woon coow balaak mu du ñëw yokku ca ma karaw affaire ba gën a buum yaa ngi dégg kon tamit ku tëgg combat bi ah promoteur bu ko dégrosé jàmm di nga dégrosé combat bu neex de parce que balaak muudu faw ñu dajawaat parce que li tax ñuy daje su keroogee mooy ku ne di nga ànd ak sa mbër ngem bu ko indi ko ca bis ba mu bëree seeg sa ak adversaire am keneen kuy ànd ak euh, Modou Lo muy Papa Sow moom euh, am na waxtaan bu mu sekk ak euh, waa sunu lamb Papa Sow di xamal que moom guddi yuñ toll pare na ak képp koo xam ne nii rek adversaire nga buñ koy proposé te mu jaadu pare na pour jël la pour bëre ci saison bi. waaw waaw loolu itam man xel mën na ko nangu parce que lu tax mooy comme ni nga wax ci saison bi léegi adversaire bu ko proposé bu raisonnable war na mën a bëre parce que li tax mooy année balance bi mu amul njariñ amul benn sens boo xoolee Papa Sow moom at yi passé ay ni mu war a bëree sax bëree wu nii boo xoolee combat bi mu bëree daaw ak Ama Baldé def na ay mm, at yu bëri wala ay weer yu bëri mu ne su koo boo xoolee kon moom itam fi mu nekk nii yaakaar na soxla na am combat pour bëre kon tey defe naa adversaire yi muy wax nag xaw ma dina mën a nekkam du nekk waaye bu buñ ne guy gi ne tafaatin ne euh, waaw comme ni mu ko limbe noonu ne Sa wax dëgg yàlla pour man raisonnable la digganteem ak guy gi lu war a mën a neex la digganteem ak Sa noonu kon papa itam loolu mu wax dëgg la ah bu ko promoteur yi seetsee égrém d'accord yaakaar naa war na mën a jël combat bëre balaa saison bee tëj parce que nag comme liñ ko doon waxee rek ñam tuuti daal moo gën a wóor bañ a ñam waaw te nee nañ euh, mbër bëre parce que tam nekk mbër te bëre woo tamit euh, day doy war waa da nekkatoo mbër ñu dem euh, si la tribune mu andil ñu tam benn jàngat bi mu xam ne def na ko muy Pa saa nee na est-ce que Balla tegul pression ki nga xam ne nii mooy Lac de Guiers parce que ndam lu rëy gi mu am ci kaw Modou Lo nit ñaa ngi koy waxtaanee ba tey te kon booy Niang war a bëreeg la de Guiers est kon pression boobu du nekk ci kaw ki nga xam ne nii mooy la de waa loolu moom moom la Pape Moussa def tey jàngat ci la tribune loo xam ne nag xëy na xel war na ko mën a nangu ci pression waaye mën na bañ a nekk tamit pression boo xam ne buy metti lay war a doon parce que lu tax mooy Lac de Guiers mbër la bi nga xam ne moo jël Boy Niang war a bëre ak moom li nga xam ne nag bu keroogee moom la géejuwaay di xaar ci moom Balla ku ne gis na fi mu jaar kon xay na lool dinañ ko xaar ci moom loolu nag mën na nekk pression waaye mën na nekk tamit motivation ñaar yooyu yëpp mën na ci nekk parce que mën na nekk pression si moom waaye mën na nekk lu koy motiver parce que li tax mooy mook Balla Gaye ku ne xam ne ne tey bu ñu wax mbaru géejawaay ah ñi nga xam ne ñoo ci gën a féete kaw boo limee Balla ak Lac de Guiers 2 na nga doog a ñeneen parce que loolu yàlla moo ko dogal ci seen carrière kon yaakaar naa loolu tamit war na mën a ne pression si moom waaye war na mën a nekk tamit motivation si digganteem ak ki nga xam ne ni euh, mu ci digganteem ak population bu géej ci digganteem ak combat bi mu jëm moo Boy Niang tamit combat la boo xam ne bu critique la pour Lac de Guiers numéro 2 ndax Boy Niang ku ne xam ne ne xale la te mu ngi yéeg-yéeg bu doy waar te euh, ci li ma seetlu si moom xale la boo xam ne day bëri mais yorut fuggu xale bëre mag lay bëre kon mbër mu jara bàyyi xel la te dégg nañu dem na ba Japon ngir préparer ji boppam Lac de Guiers 2 nag bañ ko xamee ba tey moom musul génn Sénégal te du bëree nga ne manqué na doole wala entraîné wul kon daal jàppal ne Baye Ndiaye encore une fois ñu koy nuyu tëgg na combat boo xam ne man combat kumpa laa ko tudde combat Lac de Guiers de Modou Lo astaghfirullah combat Boy Niang Lac de Guiers combat kumpa la parce que façon bëre bi ñaari mbëri yi bër la moo tax du a wax lool lool lool en pour cent ba Babacar dañuy jeexaleeg euh, journée Assane Ndiaye Assane Ndiaye di préparer beneen journée fu mu toll nii mu recruter ay boy yoo xam ne ni macha allah rien que pour renforcer combat bi nga xam ne ni mooy dox euh, diggante Wouly 2 ak ambulance ay affiche yu neex Babacar. waaw lool loolu la Assane def muy far fas ñu fas ñu yéene indil Koña ak bébé Ama bu Malick bébé Ama gis nga combat bu mu digganteem mag njool jamono bu rëbës da ko daan euh, ki nga xam ne mooy Koña tamit combat bu mujjee. yaakaar naa Fallou Ndiaye ko tëggoon fële ci arène nationale dafa daan fa ki nga xam ne mooy Assane jël leen pour indi leen le 13 avril muy loo xam ne tamit parce que dafa am ñoo xam parce que xale yooyu ay talent ñu yuy màgg ay bébé ama yooyu ay euh, Koña gis nga Koña daaw ak équipe de Dakar bi fële ca drapeau de l'état fa def muy xale boo xam tamit bu ñu bàyyi xel la muy ay xale yoo xam ne daal Assane vraiment loolu muy def noonu am na solo trop yoo xam ne dinañu indi public mi dinañu indi bëre parce que di nga leen ko xam ne ñi ëllëg war nañu mën a nekk dara si làmb kon Assane Ndiaye encore une fois ñu koy nuyu di nuyu tamit promoteur yëpp di leen ñaanal rek ku ci mën a am journée rek journée ba nga dëgmal te tëgg ko yàlla nañ si am ndam lu kawe sa njot parce ñoom la Aïssatou Faye làmb day xaw a biime parce que ñooy bailleurs yi quoi ñooy financé. waaw mbokk yu suivre Leewtoo TV li leen leen andiloon tey eh, ci seen eh, jàngat di leen nuyu bu baax di nuyu Talla Ndiaye chéri Lebu si caméra bi ak ci montage bi di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp di ko teg eh, ci loxo Pape Thialis ak ki nga xam ne ni mooy tonton Diaw di nuyu ñëpp di béggee ñëpp di ñaanal sama doom jooju jàmm gudd fan ak wér yaram di ko ñaanal bépp doomu aadama rek di ko ñaanal ndax wér gu yaram moom loolu ñëpp soxla di ko ñaanal ñëpp daal di ñaanal sama yaay bu baax samay goro samay njëkke samay xarit samay am di jàmm am na solo ay Aïssatou di nuyu ñëpp rek comme ni nga ko waxee di nuyu Leewtoo bu ñu ko waxee nag Pape Thialis lañ siy jiital parce que moo nekk ca kaw ak ñoom tonton jaw Massar ak Leewtoo yëpp groupe bi yëpp du ñu fàtte kenn nuyu na ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm rawatina Fleur bi nga xam ne nag des fois mooy defar sama kanam gi maa nuyu bu baax a baax Fleur Thiam di nuyu magam Adja Thiam depuis waaye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre encore une fois rek di wax rek di sensibiliser ay sot parce que dañu jëm ci ay kaf gi mën na bëri wax ji mën na bari nanga mais nag nañ xam ne que ay élection lañ jëm élection yi ñu jëm nag cinq candidats lañ dimanche yàlla na yàlla def ki nga xam ne moo gën ci réew mi yàlla tegal ñu ko fi parce que lu la waay mën a wax ñoo bokk Sénégal waruñoo waxante lu bon waruñu ko defante waruñoo xiiroo bay ŋaayoo bay dugg ci loo xam ne bokku ci nañu yemale mbir mi ci ay élection xam ne ci lay yem que le meilleur gagne Sénégal continue jëm kanam di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy siifir ñëpp ñoom Ndongo Fall Italie xam nga Mamadou Seck fi nga xam ne mooy Afrique du Sud ma koy nuyu di nuyu waa Afrique du Sud France bu baax a baax Sentel Mbër maa ngi nuyu di nuyu tamit waa États-Unis d'Amérique du leen fàtte waa Argentine du leen fàtte ñoom Assane Sall xam nga waa Brésil waa Algérie Benzema di nuyu ñëpp di nuyu sama gars nekk fii xam nga ñoom taximan yi nga xam ne ñoom laa bokkal benn village ñoom Mbaye Ngom Daouda Mbaye abu seen Assane Cheikh nuy naa taximan ak yaay yëpp Ousmane Dou sama rak ak Saliou joom sama rak